bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamina wasalaatu wasalaam ala asrafil anbiyaai wal mursalina seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu ci kalimatu laa ilaha illallah bi ñu seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam naan leen laay laay laay muhammadul di nuyu bu baax a baax a baax euh, xalifatul muslimina ibnu seydina manjoon saahibul kiram ibnu seydina imaamallaahi kullu imaamu imaamul aramayni di ñaan yàlla nañu ko fi yàlla bàyyi alasaan yàlla na dund ati yonti yàlla noox waaye noonu la nuy ñaanale seydina baay abdullahi mi nga xam ni lay maxtaar lu ne ci ñun moo ko ci def laay maxtaar duñ ko fàtte mukk abdullahi ñu ngi koy ziar fa mu nekk di ko fa ñaanal yàlla na yàlla yaatal ram moom te taas ñu ci barkeem ak njabootu seydinaa Limaamul Mahdi yu nga mu nekkal foofu yëpp laay Mamadou Makhtar ah di ñëw ci sunu njeexintalu émission fii ci Soodaan TV muy yóbbalu koor waaye bi moom tàggatoo lay doon boo xam ni du tàggatoo ndax euh, ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moo ñu mayoon ñuy tàmbali mu may ñu ba ñu yegg si fii yàlla nañu gunge ba ñu fekkewaat déwén yu bari barki Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wassalaam di wax ni rek euh, émission bi jàll nii suñu ñeenteelu émission bi ñu ngi nekkoon ci euh, muuru koor kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp bii nag dañuy wax ni ñu ngi sant ñi nga xam ni ñoo topp site internet bi di ñu suivre ci Soodaan TV ku ci gis lu la neex mbiri yàlla la ñu ngi koy sante yàlla bu baax waaye ku ci gis loo xam ne lii soxna Anta Laay wax na ko te neexu la Laay Maxtaar maa ngi lay jéggalu te xam ni gàtt xam-xam rek laa waxe waaye man sama gëm Baay Laay daal laa xam ni xam-xam la ci man bu leer gëm naa ni baylaay mooy xayru xalqilaahi sallallahu alayhi wa sallam njuumte bu ma def rek nañu xam ni jaam bu xeebu moo doon wax moo sañ juum waaye yàlla moom matal na kon mbokki jullit ñi maa ngi leen di ziar tàggatoo boo xam ni laay Mamadou Makhtar yàlla bu mu doon tàggatoo yàlla nañ dajewaat ci yeneeni émission barke baay Laye mu tedd di ñaanal bu baax a baax a baax xalifatul muslimina Mouhamadul Makhtar yàlla nañu ko fi yàlla bàyyil di ñaanal axlu bayti Seydina Limaamu góor ñeek jigéen ñi boo limee rek dese waaye maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. Hmm? Njaga Sarr laay maxtaar ziar naa ko bu baax sama sang boobu waaye Mbay Ndooy Sarr maa ngi lay ziar bu baax Alassane ak seeni cabalaay aadama seeni boo limee rek dangay dese laay Mamadou Maxtaar bàyyi njiin caw général bi ñu ngi lay ñaanal Alassane ak seeni yal na yàlla dolli laa dëgëral laay Mamadou Maxtaar yal na yàlla dolli laa dëgëral barki Seydina Limaamu Seydina laay taaw baay Abdoulaye ziar baa ngi noonu sa ziaru rakk yëpp naa ko teg sa loxo rek ndax ku déggul ku ma ziarul rek laay maxtaar bu déggee sa ziar yow da koy doy sëkk noonu la leen yàlla def tubaarkàlla macha allah. maa ngi ziar ñëpp ma kenn di leen ñaanal yal na ñu woor ay déwén yu bari yal na leen yàlla defal jàmm soo Soodaan TV ci kaw ci kanam barki Seydina Limaamul Mahdi yow yal na doon télé barke bàyyi Laay mu tedd mi ndax télé la boo xam ne bi lim euh, siiwal limaamul mahdi yu moo ko tax a jóg kon ñu ngi ñaan nag ci ñëpp di abone di seetaan hmm, di ñaan yàlla nag yàlla fulal ñu ko mu jëm ci kaw ci kanam ba doon ay tele barke Baye Laay mu tedd mi yomb na yàlla di ñaanal seetlu mi nga xam ne mooy coordinateur bi moo ko moo ko piloté yàlla na ko yàlla wéral ay cëram wéral ay cëram yàlla sàmm ko aar ko làq ka fa yàq eggul barki Seydina Limaamu noonu laay ñaanale ñépp rek ndax boo limee rek dese waaye daal ñëpp ñëpp koo xam ne man xam naa la rek xamal ni sama xol bi ñaanal naa la yal na la yàlla defal jàmm laay Mamadou Makhtar yal nañ ko fekkee ay déwéni déwén wa axiru daawaana an ilhamdulillahi rabbil alamin